mu jafe indiwaat ñu lijjanti ba indiwaat mu ñëwaat boobu ba léegi indiwaat ko jafe ndax lan nekkul dakaar Thiès la nekk waaye ñii nga gisee émission bi rek jàppaleel mi ngi dakaar moom daal euh, dafay nekk ci yeneen mbir yoo xam ne que nee daal ku ñëw mbir yi day dox ku ñëwul incha allah mbir yi day dox ndax li koy indi jàppaleel la gën a jiitu ci jàppale boppam ndax lan euh, dund na ba toll nen ni te duggul ci yenn yi te mi ngi sant bu baax a baax kon te wax dëgg yàlla bi ma ko jëlee émission defe naa émission kenn du ko seetaan di ci doyo kon ku seetaan yu njëkkee rek di nga gën ne kii moom soxla woon nañ ko kookoo di kan kii mii ne cees ba mu dëgër këcc teel ko boppam nga xam ne ku dugg Thiès di seetu sëriñ rek moom lay set kooko di kan sëriñ Saliou Kandji sëriñ Saliou ji borom cees mi ne ko ba mu dëgër nekk ci Tektal TV sa télé ak émission Tektal looy nuyoog àdduna wërngal këpp bi lay seetaan. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulilahi si alxufraani walkarami suma salaamaani adda alxalfi kullihimi ala lasi saada fi larbai wal ajami muhammadin xayri xalqillahi albihimi eh, sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu mm-hmm. di nuyu waa Tektal TV yëpp di leen wax ni nam mën nañ leen lool mm-hmm. eh, di nuyu képp ku ñuy seetaan ak fu mu mën di nekk ci biir àdduna bi bàyyi wuñ kenn mm-hmm. bismillah bismillah jërëjëf eh, sëñ Saliou Kandji jafe gi kañ nga ñëw kañ nga ñëw maa ngi ci de maa ngi ci de mu tëw a jafe raar googu noonu lan moo ko wala Cees a neex rek. waaw sëñ Cheikh xam nga tey. Euh, ñun bu ñu sañoon saa su nekk dañuy jàkkaarloo ak yow. Euh, ndax du ñu tayal mukk jàkkaarloo yow ñu waxtaane xam-xam. ba noppi tamit bu ñu sañoon saa su nekk. soppe yi nga xam ni tey dañ ñuy bëggee ak fu ñu man di nekk ci àdduna bi waaw nga xam ni suñuy vidéo waaw suñuy vidéo rek la ñuy seetaan fu mu jeexee ñu tegaat ko ñëpp du ñu soññ ngir ñuy defaat émission waaye damay bëgg saa su ma demee bay wax wax lu am njariñ waaw ba noppi tamit léeg-léeg xat-xat yi day bari waaw ndax man bu ma nekkul ci liggéey nit ñi bu ma deful émission tamit maa ngi ci ay mbir yoo xam ne yu amal solo la mm. waaw loolu moo tax waaye du dara na mën naa ñëpp comme liñ mën a mi woon noonu tamit macha allah kan mooy sa sëñ Saliou sëñ Saliou Touré sëñ Saliou euh, jàmbaar jooju nekk mm. kees di jàmbaar ci yoonu murit ku ne xam taxawaayam ak liggéey bi nga xam ni liggéey na ko ci yoonu murit surtout ci kippaaru Cheikh Saliou Mbacké ñuy ñaan suñu borom gën a guddal fanam gën ko wéral mooy kook nga xam ne dëddu àdduna eh, amul jënn yitte ci àdduna lu may dëgmal yàlla bañ a deltu ginnaaw ñu bindoon ko ci ak wooy ni ko saahidun an idduna bi xayri mirayi xaasidun salonla bi laa ihjaami ma ne ko yow de àdduna ñëpp dañoo daw wuti ko nga daw wan ko ginnaaw sa yitte ak sa bëgg yëpp jënn bëgg la muy yonent bi ak sunu borom subhanahu wa taala ak Serigne Touba kooku mooy Serigne Saliou Touré koy sant di ko gërëm yàlla yàggal ko fi baax a comme da nga am ndigal ci feeñ mais ba seetaan la ni la waxuloo wala li nga wax lépp d'accord na apprécié na. waaw euh, macha allah xam nga sëñ Cheikh. Hmm. Euh, yaru dafa am solo ci nit. Hmm. jaar fa nga war a jaar. Hmm. ñuy tuddee éducation de base. jaar ci waaw jaar ci bunt bi ñu yar la. wan la yoon wi xamal la fi nga war a jaar. suñ ko defee du ma ni ah doo jum de waaye du yomb. moo tax fi ñu war a teg suñ tànk rek lañ ko teg lañ ko teg. moo tax saa su nekk tamit ah macha allah ñuy gën di jëm ci kanam. day gën di bëgg ci yoon waaw muy gën di bëgg ci ñun macha allah waaw yàlla na jàmm yàgg bu baax a baax. Mm-hmm. kooku moo di Serigne Saliou Kandji ngeen ko gisee nii ubbi bi sedd émission bi dina mel saa yi ci lu baxal fàtte ko ca waañ muy bax ñu fàtte ko fa ñu naan ana ki teg cin li kenn gisu ko ñu naan ko yor caabi ji kenn gisu ko ëpp googu noonu émission boobu dina ko tàng tey bu soobee yàlla Serigne Saliou Kandji kon bul a dugg ci biir dina neex ba tegoo di jafe numéro bi bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd bi mu dugg ci biir tegtal mooy daw te tegtal nag mënul yem ak benn émission ci domaine bii nii di wax nag ñun ndaw ñi nag nan ni góorgóorlu que tamit bëgg lu yomb dafa di tamit di leen góorgóorlu di créer di indi lu bees ah muy gën ku génn tegtal la ñoon la eh soxna boo ñëwoon fii ah ñu wane la nangam nangam nangam da ngay dem wane la leneen boobu mënul ci domaine bi ah domaine ko miin téye ba mu dëgër yu waxuma la Sénégal ak Afrique ak yooyu bii ay France 24 ak yooyu yabuñu ci bii amuñu ci morom dañ ko miné teebam dëgg kon bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd bi mu dugg ci biir tegtal mooy daw numéro Serigne Saliou Kandji dafa 77 478 13 81 77 478 13 81 478 nag euh, pour ku déggul daaj 4 la ak 7

soixante-dix nag sept ak zéro la pour ku déggul daaj ñu déggul daaj il faut ñu di leen sóoraale ci ñoom soixante-quinze ak ñoom soixante-dix-huit ak ñoom quatre-vingt-dix-neuf ak yooyu moo tax ma koy a baax na whatsapp yow nga woote ci ko mu doon ñetti vocal guddul sax ba ñeent moo gën defal ko benn boo xam bu ko xoolee rek day taayal déglu ko kon nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla moo xam tëlewul dara te mën na lépp yow mi nekk ci dëkk bi nag nga woote appel normal wala nga dem Thiès fan nga nekk ci Thiès. waaw euh, xanaa euh, lew na quartier lew na. quartier lew na waaw suñ passé marché bi rek. pour suñ waaw bu ñu wootee dinañ ñëw jël si leen incha allahu rabbi. incha allah bu dee bu dee Dakar moom toujours ñu ngi zone de captage. incha allah euh, deuxième Dodane. en face bassin bi waaw. boo boo boo boo jegee deuxième daan rek. Euh, euh, immeuble bi mu ngi la féete waa waaw toujours toujours deuxième doodaan xam nga jàkka ji mooy première doodaan. waaw euh, deuxième doodaan mu ngi sa kanam. waaw toujours ñu ngi foofu takkaloo ak école école arabe. léegi ku jógee ku jógee ay ñoom Pikine nag. ku jógee côté Grand Yoff bi. su passé afte bi. tuuti rek ba fu ñuy raxas oto yi ak gauche fi ñuy raxas oto yi am na benn école arabe boobu mu takkalool immeuble bi moo ci topp. moo ci topp moo kon sëñ Saliou Kandji kii baa ngi noonu kon ku ko soxla rek euh, ci numéro yi nga koy jotee nga dis ko soxla lu mu ci man mu def ko lenn ñu bàyyi yàlla ma xam tëlewul dara te mën na lépp yéen ñi seetaan nag émission yu mel nii ku ci bëgg sëq ak joor ak yeneen nag da ngay abonné ci Tektal TV kon nii ñu ko bindee te E K T A L def espace TV beneen bi nga def te E K T A L def TV ba pare def espace Sénégal Tektal TV simple Tektal TV Sénégal ku la jiima diir mbagg Tektal TV simple bi rek mën na koo jënd. te di Sénégal mën ko yóbbu laabi si na kon ñun roy ñu boo ku bëgg liggéey sax da ngay xool fii fii fekk leneen ngay dox fële nga xool extra ba lijjanti na yeneen ñun ay code ni ñu liggéey domaine bi dañ ko miné téye ba mu dëgër leen nag xam naa ko sëriñ bu ndaw nag bëgg fee jaar bëgg doon sëriñ bu mag day jafe ci man mun ma ko sëriñ bi tamit mun na maa indi nit ñi mais munuma leen tee kenn ko dee fexe la fexe góorgóorlu ci résultat bu baax a baax a baax a baax sëñ Saliou Kànc ñu ñëw ne comme yow da ngaa ñeme ba ci feebar yu ñàng yi sax nga ne koy faj ñoom cancer nga xam ne ku dégg ñu ne da nga koy faj sa da ko jàpp fit yaa ngi ci ba léegi wala yaa euh, ma ci mus a hmm. saa su nekk ñu ngi ci. Hmm. képp koo xam ni am na feebar. ak feebar bu ko mën di jaaxal ci àdduna. Hmm. muy cancer muy man muy lu mën di nekk. na ko ak ñun. bu dee cancer moom bu soobee yàlla bu ñëwee ñu fajal ko. waaw euh, képp koo xam ne nu nga naa topp traitement yi. yi nga xam ni moom lañ koy jox. ah bu soobee suñu borom léegi mu gis ci ay résultats yu kawe njortam. daam ñuy bañ a topp traitement yi wala waaw nag am ñoo xam dañuy ñëw faju bu ñu jëlee garab yu tuuti arrêté ni day daw sama biir rek day def nii mais nag képp koo xam ni ñëw nga nu ngoo tepp traitement bi bu soobee suñu borom léegi ñu taqale la ak euh, feebar boobu nga xam ne moom nga amee muy cancer ci kattanu suñu borom si ñu cancer nan lay mel ki ko amul ba 2020 mu am ko ak tamit di leen wax tamit ñi ngi nuyu ñëpp ci année bu bees bii di leen ñaanal année bu neex bu xewale année bu yokk ak xewal parce que tamit loolu moo doon bunt dugg ci at mu bees bare di tër waxu ñaanalum nit ñi sax erreur boobu ñu ngi koy rëcc bu baax a baax année bu bees bi kon di leen ci ñaanal ngeen dund kenn ko ne dund sa njaboot am jàmm xewal yokk bu baax gars yi moom ñaanal leen wér d'accord mais bu wér weesoo nag ak xaalis bu bari ku ne am ko tan li nga bëgg te kenn ko ne tamit yàlla may la nga am kattanu julli juróom yépp mën laa fekk jàkka ja nga yow fajal di julli di ñaan ku iñaan yàlla dindi ko ci yow ku baax yàlla yokk ko ci yow ku bëgg tukki yàlla yombal ko ku tukki bëgg a ñibbisi yàlla yombal ko lu waaye bëgg rek ci lu baax mu defal la ko ci année bi ak yeneen yi di ñëw yeneen ñi nag ñu naan bu déwén yàlla nare ñaaw yàlla mel ne loolu ñaan boobu moom d'accord bu ci ay booy ñaan na nga ñaan lu baax rek comme ki nga ñaan am na lu baax moom nañ ñaan 2020 bii daal insha allah doon atu xéwal ak naataange yeneen yi ci topp dàq ko waaw léegi cancer nu nu mu manifesté ki ko am nan lay xamee ne moom mi moom la waaw xam nga sëñ Cheikh euh, cancer dafa bari ay façon mm-hmm. euh, am na ñoo xam ne cancer de sein la am. Hmm. am ñoo xam ni cancer de fois la ñu am. am na ñoo xam ne ba ci seen bële yi mën nañ fa am cancer. Hmm. mais képp koo xam ne bii. Hmm. dem nga hôpital. ba ñu xamal na ni. a ah, da ngaa amee cancer. mu war la ni cancer ma nekk ci yow. boo ñëwee garab yi ñu lay jox nga jël traitement bi diir bu gàtt nga dem xoolaat sa yaram nga xool ba xam li leen docteur yi waxoon ni mu ngi ci yow mu ngi ci yow wala déet ci kattanu suñu borom dañ koy raxas ba mu set insha allahu rabbi yow daal doo fi nekk di ko xam ne bii fois bi la bii lee la ak yooyu li jëndi ko daal nga gën a mën xam sëñ Cheikh ah. euh, nay cancer rek nay waaw nay cancer ak fu mu mën a nekk ci kattanu suñu borom euh, dañ koy raxas ba mu set insha allah léegi bu dee cancer bi nga xam ne nag mbokkam mbokk yi am nañ moyen ci tubaab yi la nekk mais sës nañ waaye moom comme jàppal nañ ko bés sax ba pare pour mu wuy ci waaw xam nga xam nga tey euh, dafa bari feebar yoo xam ni mm-hmm. ba léegi tubaab yi ay jàmbaar lañ ñu ngi ciy la mais ba léegi am na feebar fu muy àgg ñoom ñu ko mën a fajat yow daal kun jàppal bis ak yëpp daal mën nga ci dem waaw xam nga tey ba léegi euh, docteur yi xarañ nañ lool mais cancer buy soog a commencé la ñu gën a mën a faj ah. mais am na fu muy àgg ñoom dañ lay jox ay garab di traité rek mais dalay leer ni ñoom mënu a faj waaw dañ da koy da ngay bàggante hôpital di dem ñoo xam ne dañ am cancer docteur wax ko ku ci mbokk yi yu mel noonu ku mel xam na terminus bi laax kooku mën am na yaakaar bi ngi ci yow ba léegi am na koo xam ni hmm. hôpital mënatuñ koo faj ci kattanu ci ñun ñu faj ko ah, yow daal ñooñu dem final moom ngay lijjanti waaw waaw ah sëñ Cheikh man xam nga moom xoolal nag problème bi nag léegi loolu luy problème bi ñi lay indil kooku problème bi mooy jaar nañ fu ne ba pare dèjà wax nañ leen kii dafa war a wuy ci lu ma yàlla benn sëriñ mas ci am problème ku ci am problème rek du baax ndax sëriñ dafa weex donc mais problème bi kilo ko indil boobaa du la wóolu bu baax non non nooy jëflanteeg moom. waa xam nga tey euh, médecine traditionnelle ba léegi euh, nit ñi gëdd bi ñu ko war a jox. Mm-hmm. ak doole bi ñu ko war a jox fi ñu ko war a teg. Mm. ba léegi nii dafa des. dafa des dafa des bu baax a baax. mais nag macha allah euh, ñun bokk nañ ci ambassadeurs yi nga xam ni. Mm-hmm. Euh, taxaw nañ ngir défendre leen. Mm-hmm. parce que tey fi ñu yóbbu ba li ñu moom ba léegi joxaguñu ko pour loolu ñu ñu ñu jël ko téye ko faw ñun ñooy liggéey bu baax a baax. waaw waaye ndax tey bu njëkk euh, nit ñi dese woon nañoo fonk ñaan. waaye tey léegi li koy fajee lu rax la tamit ak i ñaan. de sañ bi sëñ Cheikh euh, cancer euh, saayir faju ko. Mm-hmm. waaw ndax ba noppi feebar yu bari léegi dangay ngay yaakaar ni. mais da nga gën a nga sedd dama sedd xam nga tey xam nga léegi dafa nag. dañ ko nay dal. <laughs> non ñooñu dañuy yàq ah. conseil <laughs> waaw dina <laughs> nga tey. Mm-hmm. Euh, feebar mm. léeg-léeg mën nga jàpp ni cancer moo la dal mm-hmm. wala nga jàpp ni biir buy miti moo la dal wala nga jàpp ni estomac la te fekk léeg-léeg dafa mm-hmm. nga mën a faj nag mu gaaw a wér te ngay faj di indi ay résultat da ngay ci bu gauche di ci bu droite ah. waaw après waaw euh, matuñ deux cent personnes mm. ndax ba léegi nii euh, cancer nekk na feebar boo xam ni bari na ci réew mi waaye ba léegi nag àggagul ci benn doyo bu métti boobu. Mm-hmm. waaw àggagul ci benn de ba noppi tamit euh, am na ñu mu dal. Mm-hmm. mais en général duñ ko xam. Mm-hmm. parce que docteur yi duñ leen ko wax ñi leen gën a jige lañ koy wax te dañ leen koy nëbb. waaw ndax man am naa koo xam ne maa ngi ko doon traiter cancer. Euh, waaye moom xamul ni cancer moo dal. waaw xamul ni cancer ko dal te yi ñu ko doon indi ci man moo koy faj. waaw bay na ñoo xam dal na leen te xamuñu leen dal. parce que ki leen di toppatool moo xam seen doom la moo xam ku leen jige la hmm. euh, kooku la docteur yi xamal ni kii cancer la am hmm. waaw bay nañu dal ñoo xam ni ah, sama xarit bii toog rek am na ku ma indil koo xam ni euh, waaw hmm. ñu ngi koy doon faj te moom xamul ban feebar moo ko daloon macha allah waaw te lijjanti nga ko kooku nag euh, dañoo continuer traitement bi mu dem ba ci biir mu leen garab yi baax na lool parce que bu ñu ko doon indi ci man dañu ko doon jàpp mu ne garab yi baax na ci moom mais ni muy dawee biram daal moo tax mu soñoon day arrêté waaw léegi moom dafa mujj arrêté ko ñu ni ko nangul nañ la ko bu baax a baax nangul nañ la ko bu baax a baax jërëjëf euh, sëñ Saliou Kandji kontaan nañ ci bu baax a baax ci li nga wax ci cancer kon képp koo xam ne que am nga problème boobu numéro yaa ngi ci écran ñuy bind ci sooba tey ñu ngi koy bind bind bi leer na dijj na boo amee problème rek kon ci sa bët xam ne problème boobu kii quoi ci yow lay doon kon kon ku am cancer bul xaddi bul déglu ñi lay yàqal te puis tamit na nga ànd ak gëm yàlla te nanga nangoo ñoqi na bi tamit parce que tamit bul nangu ñu laaj la yenn kii mu jaral la dagg bee yóbbul la ko réew mu ne sëriñ bi lay faj mu laaj la leen nga naan la lii de ko ëpp ak yooyu noonu. man damay bëgg ko gore ci sëriñ si mais sëriñ bi tamit gore ci client bi yërmande am kóllëre am ñu fas ko lu ne dem ci kaw ci kanam bu baax a baax. sëñ Saliou Kandji dama ñëwaat tamit euh, ci beneen bu niroog cancer ci côté yooyu ba léegi bokkul mais beneen buy sonal askan wi la muy feebaru drépano ba ñi naan feebaru mën nay neexul faj waaw téléphone noonu macha allah téléphone nag feebar la boo xam ni eh, dafay sonal nit ñi bu baax. waaw waaye téléphone moom eh, bàyyee naa yenn sama yenn mbokk yi. waaw téléphone moom wala wala yenn sëriñ si waaw waaye moom bokkul ci feebar yi ñuy faj téléphone bokk ci hmm. waaw wàllu téléphone daal ak tànk yi miti moom bokkul ci lu ñuy faj bu ñu ko kenn indil waaw nañu nag léegi dañ ngay def émission doo tudd benn feebar ba noppi ñuy ñëw di la faj loo feebar boobu waaw téléphone am moom wax naa euh, ko. muy leer naññ waaw libéré naa ko bàyyee naa ko. bàyyee naa ko maam Aliou Cissé jëm na fenn di def liste liste bi dara ba bokk ci kon mu xam ko. Euh, mbokkam xam ko ne bokkul. moo sëñ Saliou kañ nañ du faj dara ba léegi euh, beneen biir nag hépatite B. noo def ak moom lan mooy hépatite B ak ki ko amul ba deux mille vingt mu am ko lan moo ko jox ak bu amee nan lay manifester ak noo koy dindee dina yàggam du yàgg. waaw jërëjëf sëñ Cheikh macha allah xam nga hépatite B. Mhm. virus la. Mhm. virus la boo xam ni. Euh, nit ki mën na koo am ba yàgg mu jékki-jékki sax dañaatal boppam. dañaatal boppam waaw nit ki mën na koo am ba yàgg mu jékki-jékki dañal boppam. mais boo ko dama koy faj bu ko defee bu dañal boppam mu mel ne moom la. waaw euh, man <laughs> man na nekk xam nga moom euh, da ngay gis ku nekk sëriñ moom da ngay gis ku nekk. Hmm. léeg nga gis ku man gis ku mënul te nag. sëriñ si léegi dañu doy waar de. Ah. parce que sëñ Cheikh démb maa ngi am gan goo xam ne. Hmm. waa ji ñeenti mbaam la ko laaj. ñeenti mbaam ñeenti mbaam. waaw mbaam mi penku mbaam mi sow sëñ boobu jaarul tegtal de jërë waaw jaarul tegtal lenn kay naa leen ko wax moom jaar tegtal moom ma ku jaar tegtal en tout cas am na nu condition yi mele loolu booy defit dina am fu mu mën a parce que ñun boo naree fatt ñu génn la nga dootoo bokk te ku may laajit ñoo xam ne que parfois dañ may xam sax mais bu ñu dem ci kenn dañuy bàyyi wax ba pare xool sëñ bi baaxaayam nu mu ñu soog ko wax ne ko man pourtant xaritu seex ak lii benn bu ne moo tax def lu wóor baax def lu baax baax nit da ngay def dëgg rek te continuer nga ne sëñ bi laaj ko lan. Euh, sëñ bi ñeenti mbaam la ko laaj. Hmm, ba pare dëkk dëkk bu sell la waaw xam naa sëñ bi xam naa fi mu dëkk. ay hmm. code la kon ni nga koy waxee. Hmm. Euh, ñeenti mbaam ni ko mbaam mi sow mbaam mi penku. waa ji dem def pere. 6000 euros la ko jox. 6000 euros 6000 euros. xam ngeen 6000 euros mooy lan comme ñi nekk bitim réew léeg-léeg nekk ci conditions yu baax yi seen appartement la ñuy fay ak dund ba 6000 euros daal. bu ko ngay calculer daal day kii daal. 6 000 euros presque 3 millions la. dama bëgg a ne. 1000 ah. euros bi benn 1000 ah. euros bi laa benn 1000 euros mooy ah. mu laaj ko ci 6. <clears throat> mu laaj ko ci 6 6000 euros. 6000 euros waa ji dafa def pere jox ko xaalis bi. Mm-hmm. Euh, mu naa ko tan lañ koy liggéey dañ koy jàpp ñoo koy jàpp dañuy léemoo guddi lañ koy jàpp ak bu ñu ko jàppee transport bi ba noppi 6000 euros yi. ak mm. transport bi cent cinquante 000 bokkul pour ñu war a indi tan bi ñu jàpp. waaw. Euh, sëriñ daal la commencé ci France euh, hmm. moo tax képp koo xam ne ñu ngi lay laaji mbaam. Hmm. teel a daw ca ba ngay ami tànk. Hmm. parce que tamit euh, nit da gore. def loo man wax loo xam boo tëddee nelaw. ndax boo amee xam-xam bu wóor teg ko fu wóor nit suñ ñëwee. sonn jox la xaalisam def ci la nga man lépp li des nga bàyyi ci loxo suñu borom waaw waaye dóor mart lu ñu tudde dóor mart di laaji mbaam ak tan te tan ma ko ko jàppoon xooxal ko si seex day daw nëbbut ñemewul ñemewul tan bi ñemewul tan ko ko ko xooxaloon mu daw nëbbut ba nag muy bëgg a rey nii dañuy jàpp tan bu <laughs> jàppee tan fu ah? eh, am na tamit ñoo xam ni mm. ñu ngi jàmbat waaw eh, bis bu ñu la yónnee sa xaalis lañ lay gëj a dégg lañ lay gëj a dégg sëriñ boobu kay moom moo gën a metti waaw loolu tamit la fa balaa ñu lay yónnee ba pare da ngay seen sëriñ soo am bu waxee ci télé ba pare. Mm. sa waay baax gi ni àndal da nga naan yii ñii di soxla wu ñaar deux yàlla rek. Mm. lan bàyyi seen bopp yàlla rek. dëgg la yàlla kese rek wala nangam rek. yu <laughs> mel noonu doy na leen mais bu ñu xasee encaissé. Mm. man parce que li ma ci wax nee naa leen am na ci ñoo xam ne que da leen di man li ma man bu demee mënatu ci dara nag sama responsabilité dama koy dindi. dindi émission parce que dangay jël nit émission client di jàmbat. nga jël audio yi. transféré ko. mu désactivé fii. bàyyi noonu xam naa déglu na ko bu baax ne tekk bañ ma faale ma woote mu bañ a jël ndax xam na ne damay kalaame am na sëriñ tamit bu fi doon wax yokku ngóor wax ci lu extraordinaire ba ku ne gëm ko ñun ñaa ngi may kalaame moom ba muy bëgg a dee mi ngi ëpp mi ngi ëpp comprendre pour bi commencé i sant bi commencé nd comprendre léegi mën mënut parce que maa ngi bëgg a dee quoi nit ñi yenn jàmbat am na benn baykat boo xam ne que non saa li ko benn sëriñ def metti na kuy bay sawaay di liggéey ci tool yi di daj dajale quatre cent mille jox ko sëriñ bi sëriñ bi faaleetu ko jotatu ko mënatu ko woo man mi mu transféré ma audio yi ma transféré ko sëriñ bi waxul ma woo ko jotuma ko ma mas ko woo ci fixe bi xam ko mas ko woo ci bi mu mu jël xam naa enregistré na fixe bi mais exprime sax yaa ngi fekk tigo yeeg firi yeeg yooyu de loolu koy woo faneen rek jàpp ko nit da def lu jub moo gën lu toll ne kilifa ñu lay woo nga mel lu làqatu bañ a jël ndax kalaame gu lay kalaame loolu dafa ñaaw sëriñ si nga ne waaw. a waaw am na solo euh, nit sonn ci bitim réew. Mm-hmm. Euh, gis la nga doy ko mu yónnee la xaalisam. Mm-hmm. ah ba mu la yónnee xaalisam nga ko nga ko gëj a jël ah. waaw loolu tamit àq la. àq la te rafetul. te man de maa ngi lay seedeel sëñ Saliou Kandji mii ñi bëgg ci moom bari na dëgg rek laa wax te yàlla tax ñi bëgg bëgg ci moom bari na te kalaamiwul maa moom de mi ngi koy teg ci yoon te mi ngi rafetal lépp lum ci mën di doon kon ci ñi koy teg ci yoon moom. dama la ci d'accord ne yàlla gën a wéy rek. amiin yaa xam nga sëñ Cheikh. Mhm. Euh, ki ko man ak ki koy jëm bokkul. Mhm. waaw euh, macha allah jàngal nañ ñu bañ ñu waree jàngal. Mhm. yar nañ ñu bañ ñu waree yar xam nga kan moo ñu kan moo ma jaaxal. ki yàkkamti ba mu ëpp ak ki gëmul dara. Ah, waaw ah, am na koo xam ni moom euh, séeneen ay problème am. waaw. am na koo xam ne séenee problème boo ko joxee càngat bu ko commencé bala moo àgg sax gis na keneen daw na. waaw euh, boo jiyee da ngay xaar tuuti mu sax. waaw yàlla bu ko neexoon. nit de jigéen de ëmb tey am doom tey bu ko neexee mu indaale sikkim waaye mm. tey ku fi amoon doom ji indi sikkim nga daw nëbbut waaw sama doom ji moom mbaa kiimaan la mbaa du wécc jinne wéccewu ko waaw euh, te sunu borom lenn lu nekk am na doole def ko changé wa huwa xaadirun ala kulli shay'in mm-hmm. lenn lu nekk mën na ko waaye dañuy ëmb juróom boo boo jigee da ngay xaar tuuti mu sax. Hmm. nawet sax dina def ñetti weer. yow da nga jël exemple rek euh, ki ndax ki nga xam ne que yolaa nay métier am ak trompe ñoom ñaar seen doom bu juddoo. Hmm. ñoo yem ku ne ñaari nopp. Hmm. benn bakkan ñaari bët. sikkim du am euh, sikkim bi lay am noonu. am ay xefam yam ci noonu du continuer di màgg ñoom ñaar buy kii. lu Trump am am am doole doom ji mënul fexe ba accélérer adduna bi moom gaaw ne xaaral ma mën a wax sama soxla def nii nangam nangam lépp dafa laaj ci dal dal ak tey ku comme ni nga ko waxee day xaar mu sax dëgg man doon moom yàlla mën na ko mais da koo deful ba mel ne lu koo tële dëgg la ndax ni muy dëgg la dafa am solo tey dafa am solo euh, booy jëflanteeg nit tamit nga wóolu ko parce que li may wax euh, waaw dafa njort li may wax nit ñi nga xam ne bii ñooy béggee man yàlla dimbali na ma euh, suñu koo def ndax léegi ngay gis ko ni ba ma envoyé sama xaalis ëpp na ñaari weer ñetti weer. waaw dañ ma fàtte. ñu ngi góorgóorlu euh, euh, xale bu ma benn sëriñ nag. Hmm. ndax xëy na nit day fàtte te léeg-léeg liggéey bari. waaw day toll foo xam ne coono bi day mit ba doo faale xaalis. waaye ñu ngi góorgóorlu ci nit ñi di jot seeni garab. Hmm. waaw waaye tamit euh, ngeen ñuy comprendre. Hmm. waaw wootee benn yoon jëluñu nga xam ni dañoo nekk ci xar waaw rafet njort waaw xaar tuuti tamit ndax li may wax damay wax nit ñi léeg-léeg ñi leen doo yàkkamti ba ma jox la lu baaxul. Mhm. lépp lu may yëkkati di ko jox ni dee fekk ñu liggéey ko càmbaar ko teg ko ci yoon. parce que ba ma waa ba ma waree ñëw dakaar ak léegi yàgg na. Mhm. waaye am na garab boo xam ni dañ ñëwoon bu ñuy ñëw faaw ñu indaale ko ñu soog a ñëw. Mhm. waaw loolu bokk na ci li ñu gën a tardeel. waaw euh, waaw ñu bàyyi ba waaw ñu bàyyi ñu bàyyi ba ci kanam tuuti waaw incha allah. waaw am na solo. waaw <laughs> jërëjëf euh, sëñ Saliou Kandji kon euh, muy wax kii baa ngi wax ne kon sëriñ ñu dolli respecté nit ñi bu baax a baax teg lépp ci yoon mu rafet sëriñ tamit ñu bàyyi xel leen benn client ñëw rek di la tuddal tur sëriñ nga commencé rek kontaan ci yaakaar ne yaa baax kookaa bon fekk kooku bu jógee fi ëllëg dina la boole ci liste bi kon comme ci man di doon bu ñuy wax kii nga maandu xool na yéen ñaare soo ko tàmbali li mu wut na ko am ci lu rafet ngeen dem ci la leen. waaw loolu loolu tamit sëñ Cheikh dinaa fa profité di kontaan ci kàddu googu ndax tamit euh, tey. Hmm. ñun ay doomu daara lañ. Euh, jàng alxuraan euh, jàng xam-xam ñi yar ñu mm-hmm. li nga xam ne ci la ñuy yëngatu moom la yàlla nattoo am na ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo nekk dawoon ci daara lañ ñi ay commerçant lañ kenn ku nekk yaa ngi ci dara mm-hmm. ñi ay moodu moodu lañ ñu nga bitim réew tukki mm-hmm. yaa ngi dégg ñu ci nekk nag day baax ñu rafetal ko yaa ngi dégg kenn ku nekk xam ni ah xam-xam yàlla moo wax ci alxuraan ni wa fawqa kulli zii ilmin alim loo xam-xam ba yàpp ni yow rek la yàlla may am na ku nekk ci sa kaw ku la ëppale xam-xam te kooka mën naa feeñ man naa bañ a feeñ tey am na ñu ñooy génn ci média bi di jàkkaarloo ak nit ñi parce que xëy na jamono moo toll foofu mm-hmm. waaye am na ñoo xam ne tey kenn xamu leen waaw man sama maam lu nekk am na ko ci ñaan mm-hmm. million am na ko ci am na ci ay kër am na ci ay teene te ba ni mu fi jógee ci néegu ñax la nekkoon xam nga loolu dafa mat a bàyyi xel waaw waaye euh, da ngay gis sëriñ ni jàpp ni moom rek mooy dara mm-hmm. euh, di eh, sabantal ak di xalab yeneen bokkam te loolu tamit rafetul mm-hmm. ndax tey eh, bépp sëriñ bu ñu tudd ci xam-xamam ak ci yitteem ak rafetal liggéeyam léeg-léeg malaat bàyyi ko ci moom daw ñëw ci keneen ndax loolu am nañ ci ay firnde yu leer waaw xëy na noonu ay malade di jógee feneen di ñëw ci ñun noonu la malade di jógee ci ñun dem feneen parce que tamit képp koy wut yaakaar mm-hmm. képp koy wut te amagoo fa sa yaakaar nekk rek ngay dem waaw kon nañu gën a sàngante sutura mm-hmm. gën a joxante cër mm-hmm. te xam ni tamit dañuy def yàlla mooy nangu la ma waxoon séeréel ba ba ma demee Zawal ci jamonoy combat bi mu ni Balla Gaye Yékini dina ko daan ma ni ko séeréer bi li mu am am xam buy def bu jëmee li muy def du baax waaw mu ne ko soose bi lu mu am am xam-xam bu juumee li muy def du baax te yàlla mën na laa nëbb nga juum te doo xam ne juum na mm. te doo xam ne juum nga nga jàpp la nga def baax na te fekk dara baaxu ci mm. kon yàlla rek a fi nekk nañ doole lépp ci loxo suñu borom waaye nag yàlla yàlla bay sa tool bay sa tool waaw waaw toog di baax nii rek ak li ma la dégg ngay wax benn bis mm. nit wax la ay soxlaam jox la xaalisam bari waaw gisul dara ci li ko wax mu ne la ñaan gi yeex na nga naan ko alxuraan laa la jox oh. loolu yëpp ay tappaleem waaw alxuraan moom mën naa fa faj lépp <laughs> maa faram naa fil kitaab min shay'in waaw waaye nag tey euh, soo bëggee faj mm-hmm. dangay ngay dem jàngi médecine soo bëggee ñaan dangay dem jàngi lasraar jàngi garab waaw mm-hmm. jàngi jàngi jàngi bi am na ci loo xam ne nag suñ seex Euh, léeg-léeg nga gis école boo xam ne junniy élève a fa nekk mhm. waaye la cay qualifié du mat du mat du mat vingt mhm. waaw dañu wax ni mbooloo moo gis kenn la ñuy gunge mhm. waaw ndax koo euh, yàlla mooy maye wallahu yaxtas bi rahmatihi man yasaw wallahu soo fadil azim waaw euh, nit ñi dañoo ëppante daraja nag mën ngaa jàngandoo nit benn école ba noppi mu raw la ëpp la xam-xam waaw am na benn bis ma dégg sëñ Baara nga dalal ko sëñ Baara Ndiaye mu wax lu am solo waaw dafa wax nit mën naa ñaanal nit ba mu am teraanga ba mu am alal te du xam ne ñuy wuti alal. waaw te wax na dëgg. Mm. waaw am na koo xam ni am na xam-xamul jafal nit ay mbiram baax. Mm. waaye xamul nan la ñuy business. waaw nan la ñuy business. déedéet nga xool fii suñu dëkk bi li fi jaay téléphone. pourtant xam nga fa ni jaayee téléphone. mais dëkk bi nekk ku fi baax baax lu doon milliardaire sax dem ca téléphone naan moom ngay jëndi. Hmm. wala oto gars yi dinañ kut sa bopp bay bëgg a dee. waaw il ñu nga xam ku xam kii bi mu la ci yoon sinon gars yi nax waaw buñ la tegul ci yoon rek du baax. du baax waaw mu ni tamit euh, mën nga am sa xaalis di tabax di tabaxlu te doo am sens dajeeg moson bu baax. dajeeg moson bu baax gis nga tey euh, problème bi sëriñ si am. Hmm. moom ñëpp am. billahi tey ñaata musiciens ñoo nekk Sénégal. bëri am na ñoo xam ni sëñ Cheikh maa leen dàq woy mm-hmm. ah. <laughs> a neex seen baat ah. nga fi mu toll ah. xam nga boo añee ceebu jot bu ma war ginnaaw dinaa la war. Eh, ñu ngi conseillé noonu ay am na ñoo xam ne maa leen dàq dara ci woy. daqaar gaa guy ga rek. waaw bëggeel gurut jeex kenn xamul lu wax waaw boo demee ci politiciens yi tey. Mm. koñ boo dem ñaata politicien fa nekk. bari na waaw sëriñ si ami taalibe am na sama benn xayit nee na dina dem ba ci kanam sëriñ si euh, taalibe yi ëpp sëriñ si dañuy sëriñ si ëpp taalibe ndax nee na bokku man sa benn xasida wala nga dem ci jàkka ñaar wala nga gént gént gu ku sol lu weex sax nga xëy kaalaw kaalaw tamit waaw te kaalaw seerul mille francs lay jël wala <laughs> waaw loolu daal moo ci nekk moo tax nag euh, ñu gën a rafetal mm. bàyyi xel côté boobu tamit dama fiy wax lenn mu leer di nga gis mécanicien bu man li muy def mm. te du sérieux di nga gis mécanicien bu sérieux lool te mënul li muy def mu yàq sa oto hmm. di nga gis mécanicien di nga gis tamit euh, benn menuisier boo xam ne que da dul man hmm. mais day baax lu mu ci man di doon nag comme askan wi côté boo laal léeg-léeg am yolaankat yoo xam dina ñëw yolaan dem normal hmm. am yolaankat yoo xam dina ñëw suba te yóbbu sa téléphone am yolaankat yoo xam dañ ko fay bàyyi kon nag sëriñ nga mënuñoo fexe ba domaine yëpp am ku sikk sëriñ ji kese normal. dëgg la mënu nekk am na sëriñ yu sikk loolu nag du métier mi ci nit ki ndax nit ki fu mu dem jikkoom la fa yóbbu kon ñu bàyyi xel moom. waa sikk moom euh, euh, foo dem. Hmm. fekk ko fa nit mën naa bañ a jàng baax lool nit naa jàng alxuraan tamit sikk lool. sikk lool waaw mais sikk moom benn mbir la. léegi dama ñëw ci benn mbir. Euh, Suisse Mame Diarra Faye nga fa. Danemark xamaguma ko fa nekk sax fu nekk nii. Italie <laughs> benn faa la nga fa. Euh, Amérique non Angleterre laa wax sax Angleterre am na ko fa nekk. feebar bi nga xam ne que Suisse lañ koy bindee. Suisse Italie Danemark Angleterre. nga xam ne que ku ko am sax du ko ñemee wax. ku ne da ko mën a faj ñu jàppee ko dof. feebar boobu noo def moom. Euh, mooy jalis. si Suisse Suisse mooy S. Italie I Danemark D. Angleterre ah waaw waaw waaw d' accord waay nga dëgg waay macha allah xam nga nag man fi mu toll nii <laughs> ah, foog ma yóbboo sori xam nga moom <laughs> waaw nga dëgg. Euh, waaw boobu nag moom bàyyi naa ko gars yi waaw bàyyi naa ko gars yi xam naa ne daal ku mën a régler moo gën <laughs> waaw ku mënta rek ku mënta régler tamit nga a protéger wu comme ni ko gars yi de waaw moom a moo gën ah. waaye boobu moom du ma ko faj déedéet du ma ko faj sànq nag laal nga lu am sax maa ngi nuyu sama xëy nag Penda Fall état tudd ma ko léegi maa ngi koy ah. nuyu waaw beneen bi tamit wax nga sànq ci yalwaan waaw yalwaan gi euh, ndax euh, tey man yàlla may na ma chance mm-hmm. fi ma jàngee kër sëñ Saliou Touré daawuñu yalwaan. fa lañ jàngee déedéet mm-hmm. fa lañ alxuraan. Mm-hmm. ba bind kaamel. waaw waaye ñi nga xam ne bii génn nañ ci média bi. ba yàlla may leen tur. waaw euh, fu ñu tuddee. Mm-hmm. fu ñu yalwaan. ñi bëgg a rey seen bopp. te bu dul woon yalwaan ba léegi ñu ngi ci kaso bi. billahi waaw yalwaankat yàlla yalwaan la ba nga fay say bor. ba noppi fu ñu tuddee yalwaankat yi ngay bëgg a rey sa bopp. waaw gis nga sëñ Cheikh. Euh, yore jikkoy bukki baaxul. bukki baaxul gaaw a fàtte baaxul. waaw am na benn waay bu ma dégg mu ni ko la nga am ci bari yalwaan mm. waroon naa tax koo gis foo gis aku yalwaan nga sarax ko waaw waaye wax na ko dëgg waaw am na ku may tontu waaw ndax xam nga tey sëñ euh, xam nga sëñ Cheikh euh, laqatuwuma sax mm. ustaas tey ustaas tey soose laa a waxal mm. waaw bu ñu la yalwaanalee ba nga for say ba nga fay say bor foo gisee ku yalwaan da nga ko war a sarax loolu mooy yoon ndax tey euh, man jàngale naa alxuraan ay at. Mm-hmm. daanaka ba ma amee fukki at laa commencé jàngale 2014 laa arrêté jàngale ndax jot gi moo ma ko mayatu. Mm-hmm. fa may jàngal kenn daaw ma fay. xam nga tey xale bi nga xam ne papaam ak yaayam dañoo bëgg bala ñu ko yóbbu école ñu yóbbu ko mu jàng alxuraan ba pare. xam nga kook jàng rek ko ko indi. waaye xale bi nga xam ni day sàcc luñ teg mu sàcc ko ba mu jaaxal ay mbokkam. Mm-hmm. est-ce que ñaar ñii bu ñu leen indee ñoo war a bokk benn méthode bu ñu leen éduqué. loolu problème la. am na xale boo xam ne sept ans la am waaw waaye fu mu nekkee moromam bëgg koo tëddee. Hmm. bëgg a àgg ci kawam te sept la am kooku sëñ Cheikh bu amee dix ans du toj du toj àdduna. ah, ah la ko indilee ngir nga defar ko. fisilan euh, gu mat sëkk. Hmm. orienté ko teg ko ci yoon. Hmm. bàyyi ko xel ak jubanti ko mooy tax mu mën a jub. bala moo am fukki at mu nekk modèle nekk nit ku sell nekk nit ku baax. yaa ngi dégg ki ñu indi ngir mu jàng ak ki yàqu ñu indi ko ngir nga defar ko bokku ñoom waaw ki nga xam ne tey mu ngi mu ngi Gàmbi ginnaaw suba mu ngi Tamba ginnaaw suba mu ngi Touba kooku soo ko bàyyee mm-hmm. doomu mbedd lay nekk te ku ne xam nañu doomu mbedd yàqoo ko gën moo ko gën a jege defaru waaw kon nag nañ bàyyi ñu yar ndongo yi waaw nañ bàyyi ñu yar ndongo yi mm-hmm. ndax daara tey feebaru daara képp ku nekkul ci daara mm-hmm. bokkul ci daara mënu ko xamu ko man ngay fréquenté daara guddeeg bëccëg te doo ko mën a xam waaw kon yow waaw sëñ Cheikh Ouna Diop nekk fa nga xam ne que dañ doon euh, dem di taxan yi taxanu matt mattum rat mattum ngeen dem ba ngas kuul mexe riso paay riso yi léeg-léeg ñu doon dàq foofu ah booy fore tax ah wëlbatiku tamit jaar ay ñoom ngànkal dem fu ne yu mel di yolaan di boole njaxas yëpp di ko lekk nga ñëw na nga naan dangam da nee naa leen wàññil dëkk bi rek jànkat yi moom ak nitu daara yi immobile moom nga xam ne que njàng daaraa fi nekk waaw ba noppi ba noppi sëñ Cheikh dafa am lu nit ñi fàtte. Hmm. gis nga xam-xam ak wërsëg jotewuñ dara. dara man xam naa doomi daara yoo xam ni. tey bu ñuy jënd bagage lu gàtt gàtt 60 millions la ñuy taxañ. waaw 60 millions 70 millions. Hmm. waaw am na ñoo xam ne ñu nga Europe am na ñoo xam ne ñu ngi ci leneen ñëwuñu kenn. gis nañ fi ñu yor seen diplôme nag di taxawaalu. Hmm. waaw kon nag xam-xam kii daal sëriñ boobu. waaw sëriñ boobu tey euh, sëñ Cheikh xam nga tey. doy na exemple ñu ne daara moo defal sëñ Bass Abdou Khadir daara moo defal sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si doy na exemple ñuy daara moo defal sëriñ Boub mm-hmm. doy na exemple ñuy daara moo defar sëriñ Sidi Lamine Niass doy na sëkk Sidi ah. kii tamit euh, Abdoulaye Diabou Sénico li mu def ci daara waaw mu noonu léegi temps bi wax lu bon noonu bu ko defoon na kee rek di nga réglé tu doo wax do doo doy na daar sëkk sax ñu ni daara moo defar Cheikh Talif tey ah yaa ngi bay sa waar ci ci réew mi baax daara moonu defar xam nga ne dañoo xeeb suñu bopp ba daal taalibe yu xeebu baax bëgg lu te baax tëñu kon foofu bu dee mënul beneen boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro Serigne Saliou Kandji léegi dama ñëw baxal mbir nag mu bax nag waaw 77 478 13 81

comme ñoo xam ne dañu jàpp ne treize daal du du bon heure waa treize du treize waaye xam nga sëñ Cheikh. <laughs> Euh, treize treize doxul. treize doxul. déedéet xaar màggal numéro ñëw. waaw waaye waaye quatre euh, quatre baax na sept baax na. ah quatre baax na sept na. waaw. ok kon xam nga sëñ Cheikh man damay fekk mu lëndam sax bañ a baax ma leeral ko. jeex na kon xaar màggale. quatre cent soixante dix huit treize quatre vingt un kon treize yu sikk yeneen la may du treize am. beneen soixante dix sept

bu dee Dakar zone de captage ci wetu bassin bi rek. Mhm. nga fekk dis ko solo lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla moom xam tëliwul dara te mën na lépp euh, ki nekk bitim réew tamit mu jàpp mu wax ci whatsapp bi euh, woote appel normal bu jafee mu def vocal vocal yi tënk sinon tamit euh, dina jéem a góorgóorlu pour tontu ñëpp daal mais tey am. ngeen jëflante tënk tamit léeg-léeg nit ñi soxla ko nga naan ko yaa yaa ngi si jàmm daa mel ne yow ko de sëñ bi war am na ci yoo xam ne boo ko ku jafee jot boo ko jotee rek accéléré bi bu demee ba weesu nag ngeen kafree mm. sëñ Saliou Kandji léegi dama ñëw ci euh, wàllum boo xam ne que dama la fi jëloon émission nga wax ko mais nga taayooloon ci ñu bëri sonal la ci am ñoo am jot ñoo xam ne que dëgg la am du dëgg rek taxu ñu sonal la ci te ku ma ci laaj ma ne ci biir émission bi moom ci boppam waxuma ne da koy def te sawarul tamit ci waxoon ko man maa ngi koy imposé pour mu dem ci mmh. mooy ki nekk bitim réew nga mën koo yóbbul ay garabam te du jaar ci avion yi du jaar ci CP dem directement. waaw euh, xam nga lu ci yëngal wala. waaw euh, booba euh, jëflante na ci ay ay nit. waaw waaye dafa nekk liggéey bu métti. xam nga tey ku ci kii xam nga tey xam nga tey da ngay dem ba yàgg. sa temps dina la may lu bari loo xam ni yomboon na la. Mm-hmm. day jafe ci yow. parce tey soo nekkee koo xam ni. Eh, xam nga am na benn waay bu la woo. Mm. koo xam ne <laughs> waaw wax wax nañ wax nañ waxtaan nañ ba ci moom <laughs> mu woo la dugg ci yeneen affaire waaw <laughs> léeg-léeg gars yi tamit xam nga tamit eh, nit da ngay da ngay dëggu. Mm. waaw li ngay wax ak nit nga nga bàyyi xel ni li nga wax ak moom. Mm. li nga wax ak moom nga xam ne mais nag mënoo seq nit ki waxtaan. ngeen waxtaan ci dara ba juboo ci nga xëy xëy bëgg ci indi yoo xam ne bokku ci. waaw tey. ki nga xam ne bii euh, bu mosaan a fukki nit lay lay jëflanteel. Mm-hmm. wala ñaar fukki nit. Mm-hmm. léegi nga àgg foo xam ne boo xëyee lu ma téeméer nit dañ lay soxlaandoo wala lu ko ëpp. Mm-hmm. waaw bu boobaa xar-xar yi day day day day bari waaw liggéey yu bari yoo xam ne bii yomboon na la doo ko dootu la yombati. ndax boo xoolee tey suñu yoonu dakaar yi li ko gën a tardeel ci la ndax waroon nañoo dem ci àll bi yeesalaat suñu bopp yi bari ñu liggéey ko soog a a ñëw mm. waaw euh, waaj nañ ay yoon yoon ba ma jàpp bis waaw mi dem na ba ñëw kees bëgg ma jël si waaw ma ne ko léegi jékkagu ma bàyyil ma dem ci àll bi mm. waaw euh, ndax li ñu bëgg mooy saa su nekk dañuy fexe di indi lu bees loo xam ne buñ ko tegee ci taabal ji képp koo xam ne bii laal nga ko rek da ngay jóge fi nga nekkoon dem ci kaw waaw dañoo bëgg di monter bu nekk ñu ñu ñu wóolu tamit sopp liggéey ak ñun di monter dem ci kaw di monter di dem ci léegi daal kon euh, ba léegi ku gëm a ku bëgg jox ko garab yoo xam ne day ñëw bitim réew dugg avion mën na nekk ba léegi loola mën na nekk mais liggéey boobu nag moom ah yombul ko dem ba proposé ñu ko nag te nungu Euh, waaw bu baax a baax bu boobaa ñu def ko incha allah kon boobu moom da cee tayal lool ku gëmati nag xanaa am na ñu bari nag ñu gëm ni euh, am na ñu bari ñu gëm ni mënta nekk waaw jaaxal na nit ñi ay kilifa yu bari sax woo nañ ma di ma laaj ma waxtaan ak ñoom ci xam-xam ma ni leen euh, tey tubaab yi fexe nañ ba nga mën a toog fii léegi jàkkaarloo ak ku nekk France ci Facebook wala ci leneen leneen waaw ma ne leen ñooñu bàcc na leen gën a fort waaw mbir moo gis ci àdduna am na saayir am na baatin waaw am na bu njëkk suñ bokk séeréer yi daanañ ko def mm-hmm. waaw euh, dëkk bu ñu bëgg a nekk rek euh, mën nañoo def baatin léegi euh, gëmmu bu ñu xippee nekk ca dëkk booba loolu daa nañ ko def. mais ñu mel noonu nekkatul fi wala. waaw bareetuñ nag bareetuñ waaw bareetuñ. ci nga bokkoon. ci nga xam nga man fi mu toll nii <laughs> xam nga man fi mu toll nii sëñ Cheikh. xam nga tey man. dañ maa dencoon. dañ laa dencoon waaw dañ maa dencoon pour ma ñëw tey dimbali nit ñi. pour nga jëm ah kon daal ñu jàpp ne ku la gis nii di seetaan tegtal kon nag ñi am problème kayit yi laay ñëw nag bitim réew. waaw ñoo xam ne saa ay kayit dem na ba naan xanaa sëriñ si dañoo xamul condition yi ni defee kayit ni ñu ko yombalee du noonu de façon yu mel noonu loolu ma bëgg xam ay kayit ku ko bëgg am ci ndam bu gaaw muy nationalité bu mu mën di doon daal mu nekk ci jàmm kooku loo ko mën a. waaw macha allah euh, di nuyu. Mhm. Demba Diop bu baax. Demba Diop. ak Basirou Ndiaye ak Basirou waaw euh, façon ba Diop gën Basirou Ndiaye déet <laughs> ak Basirou jaay maa ngi leen di nuyu daal mooy loolu. Euh, waaw euh, ay kayit képp koo xam ne bëgg na ay kayit. Hmm. mën nañ la liggéeyal nga tudd ñooñu daa am waaw ñooñu yàlla dafa dogal ñuy liggéey ak ñoom di leen ñaan ba yàlla dogal ñu nekk fond France. Mm. waaw euh, di nuyu Jaafara tamit sama xarit. waaw waaw euh, maa ngi lay nuyu di la siyaar. di nuyu Olivier ak euh, Wombel Cécile. sama xarit yooyu. waaw Wombel moom mi nga xam ne dafa dagg bee jóge France ñëw ba fii seet suñu. def ak ñun ay fan te wax dëgg yàlla Camerounien la ñu ngi lay nuyu. Mm. waaw di wax ni tamit suñu yoon woowu ngeen ñu proposé ngeen taxaw ci parce que incha allah 2020 bi moom bëgg nañoo fëgg foofu. waaw dañuy def émission incha allah. Ah, docteur day dem. dem day dem waaw. Baye ñoom ñëpp dañuy dem. Petit ñoom ñëpp dañuy dem. incha allah Massi ñu dem de. waaw képp koo nañ nañ dem France waaj leen daal. parce que bëgg nañoo ñëw fi mu toll nii. kon euh, dama dégg ngeen ko passeport yi waaw nañ nañ waaj euh, xam ne bëgg na ay kayit. bu jokkoo ak ñun incha allah dinañ ko jàppale. liggéeyu kayit nag suñu Cheikh. Mm-hmm. Euh, dafa xaw a jafe. Mm-hmm. ba noppi. Mm-hmm. li mu laaj ci temps. dafa bari. waaw dafa bari. moo tax képp koo xam ne dangay ngay liggéeylu mbiru kayit tamit mm. nga xam ne li nga bëgg tamit yombul lu jafe la mm. nga nangu cee góorgóorlu bu ko defee bu soobee suñu borom bu ñu la ci liggéeyalee rek incha allah léegi sa bunt yëpp ubbeeku li ngay lijjanti nga am ko képp koo xam tamit da ngaa nekk foofu mbir yi dëgër mënoo am dara boo jokkoo ak ñun ci kattanu suñu borom mm. waaw sangatu jooni jooni yooyu gaa ci may xaalis sangatu jooni jooni am xaalis xaalis bu bari waral xaalis rek parce que bu ndaw kenn soxlawu ko kenn soxlawu ah? xaalis bu ndaw bu ndaw kenn soxla woo ko. mais test bi da ngay def ci man kon après. yow déet sa jeex. fi mu toll nii. Euh, am na lu ma la wax sànq yaa ngi sant mais dañuy yokk. am na lu ma la wax sànq. jeex na naa bu soobee yàlla bala maa buuse fii météo dina am lu ñu jox. nee na balaa muy buuse rek tàkk-tàkk bi gën a yokku kay xewal bi gën a yokku. Ah, hmm. man moom. waaw sangatu joni ay noonu ak yooyu ba kenn du sama noonu. waaw sama nit la. sangatu joni moom. waaw euh, ku bëgg xaalis xam nga wax naa la suñu émission bi man la maye xaalis. waaw képp ku ma topp jàppante ak man te bëgg a xaalis ci kattanu suñu borom ñu dawal tuuti ñu lay yërëm du am. Ah. waaw ñu lay yërëm ak ngay wër fu ne di sàkku ndimbal déedéet. te ku la war yëg ko waaw ah ñi ma fonk jàpp ma de te bañ maa war léeg-léeg ma toog ba mu yàgg ñu ñuqi lu am solo jox ma te la ñuy a tax waaw nit du la fay ba di la may ki lay may xam nga mu ngi sant waaw euh, am ñoo xam ni dagg bee ba ñëw ngir ngir seet si ma ngi bég ma ciy nuyu Alioune Sow maa la siyaar di nuyu waa Tiwaawan ku am kóllëre nga nag maa ngi lay sant bu baax yow tamit macha allah ah, léegi nag beneen mbir comme ay kayit wax nan ko beneen mbir boo xam ne que dafay ki nekk bitim réew moo dafa mel dafa jafe sëriñ si daal mm-hmm. mooy yow tubaab ba mun a ngor lu mu bëgg mu def ko daal loolu daa mel ne yombul de Euh, waaw macha allah euh, loolu dañ ciy liggéey bu baax. Hmm. dañ ciy liggéey bu baax te ñàkkul am na ku naan Saliou damay tudd turam. Saliou euh, nan la santati Seck. waaw kooka waaw am ah, ngi Allemagne. Hmm. liggéey nañoo ak moom ak ci ci mbiru mbiru yooyu liggéey nañ ci ak ñu bare bare. Hmm. waaw képp koo xam ne bii bëgg nga takk tubaab. te bëgg ñu yeewal ak ba mu ne ngodd. jokkool ak ñoom ki bëgg ab takk ko. ki bëgg ñaar yëpp ñoo yem. ki bëgg takk tubaab takk la ak ki bëgg takk tubaab benn la. loolu noo koy defee moom ay fas la wala ay xaatim la wala ay lan. waaw xam nga sëñ Cheikh euh, waxoon naa la fi man damay cubbe nijoor damay cubbe càmmoñ. Hmm. waaw tey lu commencé bàqara ba naa si ay boo ma ci tuddal mën naa laa wax njëriñ bu mu mën a def. salaamualeykum tibtum faddu xuloo xaalidina. salaamualeykum tibtum faddu xuloo xaalidina. Hmm. waaw kooku mën nañ koo fayee coow. Hmm. waaw mën nga koo fayee coow mën nañ cee faje faje feebar mën nañ cee liggéeyal koo xam ne tamit dafa nekk ci ay problème waaw mën nañ cee liggéey tamit koo xam ne dafa nekk ci benn place dafa sént naataange waaye saa bu xëyee di ay mbiram di gën a dëgër muy gën a dellu ginnaaw léeg-léeg mu la damaa gént ay ñax ku ne xam na ne ay ñax bekkoor lay waña mooy ñax yu wow koŋ mm. waaw bu ko defee nag boo ko cangatee sa nga fadd salaamun aleykum tibtum fadd xuloo xal dina mu ni day nekk ci naataange mm. day nekk ci ëbbeeku mu ni day gis ay xewal waaye nag faaw nga dagg ko xaatim xool biddiwam xool yi mën a àndal ci ay sunguf nga boole koog ñoom xam nga gaa yi dañuy capté boo nee salaamualeykum salaam rek ñu dem jël salaam. jël salaam 70 ak. 1111 <laughs> ah. a ci yam. loo ko mën a bind te xamoo ni ñu koy liggéeyee. waaw sëñ Cheikh. waa seen la nga jiyaatee kër. waa asina finance bil xaj yi waxoon mën na indi bayre ci place. Mhm. mën na indi bayre ci place mën nañ ko boo xam ne dafa bëgg jëkkër. waaw loolu li mën a liggéey bari na macha allah. fay sa batasum batasum mooy isa batasum batasum jabbaari na waaw kooku xeex la xeex waaw képp koo xam ne dalay tooñ di la yab di la fontoo nga bëgg mu fay mm. waaw ku ko mën di boyal dootul tàkk essence gasoil loo ko mën di xëpp day gën a fay dellu waaw wa isa batasum mën nga ko ca dugal waaw bana ko tamit mën nga ci liggéey nopp képp koo xam ne da ngaa bëgg ku la topp loo ko digal mu def loo ko laaj mu jox la waaye nag boobu kenn du ko defal kàccoor de waaw kenn du ko defal kàccoor de kalaal si ama géey kenn du leen defalal boobu <laughs> waaw <laughs> boobu moom moom da nga koy defal ku réglé waaw non man kon léegi daal kon ab tubaab moom ku ci kii parce que par la Uh, uh, nu mu tuddati Dieynaba Diawaté mi ngi seetaan keneen ak keneen mi ngi seetaan uh, Marie Ba Genève nuyu naa la keneen ak keneen ñi nga xam ne ñi ngi téye tubaab boo xam ne bu tubaab bi takkee rek seen i mbokk tekki ñooñu mën nga ko lijjanti lijjanti bu gaaw. waaw kooku dañ ciy dimbale ay nit baax macha allah. Hmm. xam nga tubaab yomb la jàpp. de laay sañ lu yàgg baaxul waaw lu yàgg baaxul hmm. waaye liggéey bi dafa war a gaaw hmm. tubaab dafa am nañ koy jàppee xam nga tey ñu bari xamuñu ne. léegi ne bu dee tubaab boo xam truite pour nga prononcer ko sax day a jafe nooy def ak moom. laay man euh, noo ko bindee bu ñëwee ma liir ko. Hmm? waaw. fi mu dal ay tur yu doy waar Olga Olga kenn ki Olga la tudd kenn ki xaw ma la. <laughs> waaw maa ngi ay man nu man di mel. man moom nay tubaab rek. anglais daal ak espagnol ma jaaxal saa boo ko bindee tubaab am na nag ñoo xam ne moom ñu nga foofa waaye nag ay tànki jargoñ lay binde. Hmm. bind yi nay leer. am na ñoo xam tamit bu ñu lay wokkaat di la wax tubaab. Ah. Euh, da a war mel ni Bamba Jara di ko wax muy leer. di ko waaw Bamba Jara di ko wax muy leer di ko benn bennal. mais par fi ñu nekk la xam naa xam nga nag waaw xam nga gars yi duñ bëgg ñu dégg leen léegi dañuy ne foo xam mais na ko tom la tudd wala. mais xam nga di joxe tur mel ni kuy tari alxuraan xam nga loolu tamit. waaw dafa métti du <laughs> ne da déglu ba sonn ko dem na di nga fa dëggal téléphone. te am nga jot amul waaw na leer na waxay leer kañ léegi nag événement euh, yi ci dëkk bi nag loo ci mën mooy jigéen ñi nga xam ne que dugg nañ cinq yi cinquante ans yi euh, quarante yi borom la problème borom kër tëlim ak van yi ci dëkk bi mooy paa yi nga xam ne que ay mag lan dem ba nekk mag soxna tëlim ak godse yi ci dëkk bi ñi nga xam ne que xale leen jàpp seen bopp temps bi dem rek ñu ba am borom kër tëlim xeet googu ba ñu commencé ñaan lu pour am borom kër lii noo def ak waaw euh, képp koo xam ne bëgg na jëkkër mm-hmm. ci kattanu suñu borom bu ñu seesee ñu ñaanal ko mu am jëkkër mm-hmm. waaw loolu moom ñu ngi ciy dimbale ay nit bu baax a baax a baax a baax jigéen goo xam ne da bëgg jëkkër mm-hmm. te bëgg bëgg jëkkër ju baax waaw xam nga tamit euh, jëkkër joo xam ne bii daa mel ni waa ji ma seet si woon di ma ñaan ñaanloo jox ma téeméer ni ma samay sarta diis ñaari jabar la yor waaw bis bu nekk naa joxe dépense mille cinq cent xam nga kooku jëkkër ju mel noonu musiba la waaw dangay am jëkkër xam nga tey sëñ Cheikh góor góor dafa war a tabe. dafa war a waaw. waaw ah, kon moo tax Youssou Ndour bi mu waxee ñi mer ñëpp nii mooy ñu nay. ah Youssou woy wi tamit euh, wax na dëgg de. ah wax na saf na de. saf na parce que ku ci xuloo ñu sabañ la woy waaye wax na dëgg nag. Ah, waaw wax na dëgg de. waaw wax na dëgg mais ku nayul rek bokkoo ci. waaw ku nayul bokkoo ci góor gu ah. nay moom baaxul wax na dëgg. Mm. waaw xam nga tey boo amul ñu xam amoo. Mm. waaye ñàkk yërmande xam nga sëñ ci yàlla jigéen dafa war a tabe. tabe waaw. Mm-hmm. ba noppi tamit yore jikkoy gaynde waaw waaw boo amee soxna danga war a yëngatu hmm. waaw bu fekkente ni bii doole ji dafa manqué nga wuti doole waaye ne xujj rek ñëw doole xam nga tamit jigéen boo ko yoree ci kër jox ko mu lekk joxoo ko mu naan wëddoo ah bu ñu demee ca biir mënoo loo ko dara ay cipatu moom <laughs> doo tàggoog moom foo toll ñu ngi lay kon foofu lay jaare directement dugg ci mi-temps <laughs> Tektal dugg nañ ci vestiaire Real Madrid yi génn nag ngóor waaw macha allah euh, ngóora mm-hmm. euh, dañ ciy liggéey garab gu am solo te garab gi sax sëñ dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko liggéeyewaat noo xam ni mm-hmm. problème boo man di am ci mm-hmm. sa wàllu san euh, santé santé mooy ñu nga xam ne bu ñuy wax seen gémmañ yi day xeeñ ah, moo fi waaw moo fi aleen xam nga sëñ gémmañ ju xeeñ baaxut gis naa koo xam ni dafa bëgg benn jigéen looloo tax takkul ndaw si waaw te pourtant ñu ci bari danaa la jël naa bien de bouche boros naa socc naa bay bëgg a dee te mënuñ ci dara. waaw xam nga am na xeet goo xam ni ci bañ lay bàyyi ko. Mm. kooku lu ci gën socc amut. Mm. waaw lu ci gën socc. amul ndax socc day dindi tayel mm. day dindi bañ yuy day dëgëral bëñ. day dindi xeetu gémmañ mm-hmm. day dindi yaram bu day dindi tayel mm-hmm. day leeral ay bët socc moom daanaka. Euh, ci bu leen bëñ moo ci moo ci gën waaw ko ci gën amul waaye na ci xeet yoo xam ni ci biir lay jógee. Mm. kooka garab gi ñuy joxe da koy faj. waaw garab googa day raxas deret. Mm. day day day dindi cholestérol day dindi suukar. Mm-hmm. ba noppi tamit moom euh, traitement bi deux sachets la. deux sachets waaw. Euh, sachet bi benn bi bala moo jeex. macha di nga yëg euh, njàmbaar goo xam ni di nga ni yeex naa jël garab gi. ah kon daal moom du kese. dafay jëm ci dafay defar côté la day day baax na ci moom man hémorroïde bokkuma ci ma ko koo xam ni am na jalis sax. waaw. képp koo xam ne am na jalis muy jël garab googu ci kattanu suñu borom léegi mu raxas deret ji dimbali ko ba xam ne dootul amati benn jafe-jafe hmm. waaw garab boobu jigéen da ko jël wala góor euh, góor baax na ci góor baax na ci jigéen hmm. parce que képp koo xam ne bi dafay amee euh, nu mu tuddati ballonnement ak euh, liy dal jigéen ñi bi lay fàtte règle buy miti fibron fibron waaw fibron yooyu yëpp ak règle buy miti yooyu yëpp ak ñi nga xam ne bu ñuy sëy hmm. dañuy jot seen bopp ak ñi nga xam ne du ñu xiif waaw ak ñoo xam seen bët yi dafay lëndëm mm. ñoo xam ne seen bopp yi day faral di miti euh, garab gi yooyu yëpp da koy faj mm. waaw ba noppi doole ji mu àndal ci wàllu kattan macha allah ah, yàlla ku jigéen sax bu ko ah waaye sañ bi euh, xam nga xeex li ci neex mooy ñu lay doon ngay fay waaye ñu lay doon ngay yuuxu rek baa ko sa jeex daa <laughs> jigéen ñi nañu jël ci garab gi waaw garab gi góor mën na ko jël jigéen mën na ko waaye nag góor moo tax ma jël ko góor a kay bu la ko ñëwee boo xëyee ginaar ngay ndekkee da ngay teel a ndekki ngay ndekki waaw képp ku bëgg teel a daal kenn du la ci war jël si garab kon sëñ Saliou Kandji fi nekk nii euh, embouteillage baa nga Thiès embouteillage bi ak zone de captage ndax lan nee na ku doon jox mburu mburoog chocolat mburoog beurre mburoog thon yooyu yëpp day dakk dañuy xool li nga bëgg balaa nga koy wax sañu xam ko defal la ko heure boo yow bëgg daal mooy loolu Kañ daal yëngal la mais boobu bi sori nag mën nga ci waaw euh, as boo mën di am mhm. mën nga koo jël waaw jëlal nga xool sa bopp ci kattanu suñu borom boo commencé garab gi ñetti fan ah bu fekkente ni am màgget nga moo xam ne yaa ngi ci soixante-dix ans bu la neexee nga dem wuti ñaareel boo amul woon boo amul waaw ci kattanu suñ borom nga dem wuti ñaar bu ko defee di nga ànd ak doole di nga ak sawar te kenn du la jëpp kenn du ko jëpp eh. gi jeexee rek fitna bi loolu baaxul xam nga tey euh, garab yooyu li koy gën a indi problème yooyu mooy bay na ñoo xam ne bu ñuy liggéey garab dañ ciy rax lu ci bokkul ah. waaw xam nga tey waaw dañ ciy rax lu ci bokkul mais tey garab su fekkee da nga ko da nga ko liggéey ba noppi garab li ci yéeme mooy Euh, garab yi ñu ko liggéeyee yëpp garab yi ñuy lekk la. du la indil feebar du la indil effet secondaire te war naa ko ci suñu borom ni euh, bariwul garab yu ko gën ci garab yi ñuy joxe ci wàllu yooyu. waaw am na nag ñoo xam ne sëñ seex moom. bu yàlla wàccoon sax du tax ñu sànni xeer. du tey ñu sànni kuy gaaw a yegg ku mënul dara. waaw ku gaaw a yegg yegg am na ñoo xam dañuy gaaw a yegg. Mm-hmm. am ñoo xam ne bii euh, day taxaw waaye du dëgër. Mm-hmm. am ñoo xam ne pour mu taxaw fu ne di nga ko coq pour mu taxaw waaw am na ñoo xam ni moom laa wax pour mu taxaw day mel ni batterie bu vide fu ne di fa puus waaw di puus jëmale côté bu nekk muy a tàkk ñooñu gaaw gaaw waaw ñoom ñooñu lañ bokk ñi nga xam ne moom euh, dañuy mel ni oto oto boo xam ne daal euh, démarreur bi neexul bu ñu xasee ba tàkk ba fay ba la ñoo tàkkaat problème la hmm. waaw mën nañoo sangu mën nañoo xëppoo ndox laal parfum fu ne dinañ fa dugg waaye daal nemm rek waaw garaw gi baax léegi tamit di nga dégg ñuy wax ñi seen marché ñooñu tamit ñu ñu jiñ ko feebar. comme ñan. comme mooy góor yi dul yegg teer mukk daal. waaw loolay feebar la. waaw ah, feebar la waaw xam nga sëñ Cheikh. da euh, xam nga tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo jàngal lépp. Mm. xayrul umuri awsatuha mm. waaw xam nga tey euh, gaaw a yegg baaxut. Mm. yonent bi nee na mbir yëpp li digg doomoo ci gën. gaaw a yegg baaxul. waaye bañ a yegg itam baaxul. waaw kooka moom bu yàggee moom sax nag da nga koy daj. waaw dootul ànd attan gis naa sëy bu tas ndax lool ndax loolu waaw waa ji du àgg tam minute bu ne mu kaba soxna si. waaw soxna daa mujj ñëw ni ma dimbali ma ma tas. Euh, waaw kon ne am na fi. waaw bu ne am na fi. Ah, euh, bi def annonce ah. waaw jaaro jaaro nag sëñ ci ah. euh, mook ceen laa laa wax waaw. jaaro ceen bi. waaw dinañ ko liggéey nag. jaaro beeg ceen bi dañ koy liggéey ba takk. waaw non ceen ak ceen dinaa koy liggéey. waaye nag day fekk nit ki commande ko nekk bëgg-bëggam waaw waaye man bokkul ci yi ma bëgg trop man li ma gëm mooy mm. nit ki da nga koy defal li nga koy defal ci yaramam waaw wala nga liggéeyal ko ko man ñi ma xam xam ne damay liggéey à distance mm. waaw wala nga liggéeyal ko ko à distance mm. li mu bëgg lépp mu di ko am te kenn du gis mu takk jaaro kenn du gis mu takk seen waaw dañ koy gis mu yokk di jëm ci kanam mbiram yëpp di gën a baax ñu naan waa ji fan la jaar waaw te fekk boobu doral nga ko la nga koy doral waaye nag képp koo xam ne tamit commande na bëgg ceen ah nañ ko liggéeyal Euh, ceen wala jaaro boo xam ni dina ko aar ci lépp lu ko yàqal waaye dina ëbbi wërsëgam bu baax waaye waaye nag man du ma proposé kenn jaaro. mais sa jaaro lan nga waxoon loo wundi ci njëriñ lay wax li war a ñëw. waaw euh, jaaro bi lépp lu la war a yàqal. bala moo egg si di nga ko gént. gis ko waaw. Euh, dina la misaal tamit ay xéwal yu bari yu war a ñëw ci yow boo ko takkee noppi ngaa dellu ginnaaw saa su nekk ci kanam rek ngay jëm. waaw ci kanam rek ngay jëm. boo ko boo ko takkee ah bu réeree moom da ngay wutiwaat beneen waaw ba noppi euh, gis nga dinaa la wax lenn sëñ Cheikh ñi nañ ci bàyyi xel jaaro bu baax lool hmm. ak gaaw a réer dafa gaaw a waaw ndax jaaro en foo ko fekk de laal mbiri jinne hmm. waaw moo tax jaaro bu baax daa gaaw a réer hmm. bay na ñoo xam ne tey buñ ñu tijjee seen armoire la fa nekk ci jaaro kenn xamul ñu toll waaw fañ ne woon daaw ak daawaati jeeg ba léegi ñu ngi fa réeru ñu buuse wuñ metar nit kaa ngay gën a dellu ginnaaw lañ leen jox baaxut <laughs> waaw euh, gis nga euh. sëriñ boo lay ñaanal nga topp ko muñ si six mois mm-hmm. jàpp ba at gisoo dara lal mm-hmm. waaau te bu kenn def pré ngir fay sëriñ lànk leen loolu moom dogal dégg naa tamit boobu am na booma ci ku def pré pour fay mm-hmm. euh, loolu tamit d'accord ma ci bu la laajee jox ko la nga am soo amul nga dem wuti la am jox waaye def pré moom banque bi topp la ñaari at ñetti at ngay ko xam da lay ñaanal yàlla loolu moom lànkal bu leen bu leen ko def waaw léegi euh, bay dem koo xam ne bii bëgg na soxna lool mu tëkko bari na koo xam ni bëgg na jëkkër lool mu tëkko mm-hmm. bari na koo xam ni fa nekkoon fukki at ci ginnaaw soo demee tey fa koy fekk mm-hmm. waaw avancé wul delluwul ginnaaw wala sax xëy na dellu ginnaaw woo ko gën a jege daa mel ni oto bu dugg ci suuf. waaw jamono ko avancé wul da dellu ginnaaw. waaw euh, bay na koo xam ni avancé wul meetar te ñàkk bay rek moo ko xañ lim doon. bay na koo xam ni fu ñuy séddalee fàtte ko. Mm-hmm. waaw bu ñuy namee ay poste ministre duñ ko nomee bu ñuy nomee ay député duñ ko nomee te lan moo ko waral muy ñàkk bayre waaw ñàkk bayre nag lu bon la ci nit moo tax nit danga war a saf suukar mm. saf xorom saf xorom waaw gis nga sëñ Cheikh mm-hmm. néew na kuy xëy suba ba ngoon te musul suukar wala musul xorom mm. waaw euh, am na ku ma déggoon nga dalal ko fi daaw ak ren kuñ fi dul kuñ fi coowut kuñ fi saagawul waaw kuñ gis nga nit di xëy ñu lay tudd dafa baax mm. waaw waaye nag ñu fàtte la rek ah loolu nag du jàmm waaw moo tax bayra moom lu baax baax la. ci mais sëriñ bu ñu fàtte yow bu ñëwoon mën nga la ilaha illallah ay sëriñ dañ may woo. Mm-hmm. waaw dañ may woo xam nga nag man yàlla. dama nekk terre nii bu ñëwee nga tànn ñu tax. waaw xam nga tey sëriñ Cheikh. mbiru ñaan dafa dafa dafa dansé de. après nga tàggoo bu tàggatoo. ñaan dafa dansé de. Mm-hmm. léeg-léeg nga gis koo xam ni day laal lu waru woon a laal. parce que léeg-léeg mu ngi dugg ci nit di ko fajal rab. Mm-hmm. fekk rab ba ëpp na ko doole. wala muy dindi liggéey koo xam ne liggéey ba nekk ci kooko ëpp na ko doole waaw wala muy jéem a yàqal kenn ba far yàqu waaw moo tax tooñ baaxut de waaw waaye képp ku nekk ci saako yi te bëgg cee génn bu ñëwee ñu génne ko ci yàlla mm. dogal na ay sëriñ dañuy wax man soxoruma lenn kay moom moo yombul ci man mm. joxe ay secret waaye nag ku bëgg ñu jëlee la kàmb gi taal la nga jóg ci kaw ñu déggal la ñu defal la ko <laughs> waaw léegi waxtu bi dab na koy tàggu koy jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh di la waaw di la sant di la gërëm mm-hmm. sant sama xarit eh, sama doomu ndey Youssou Diop di ko oh. nuyu mm-hmm. di ko siyaar sant sama sëriñ sëñ Saliou Touré mm-hmm. di ñaan yàlla guddal fanam waaw waaw waaw incha allah guddal fanam welal ay cëram yokk ko ndam ak xewal di siyaare ñëpp ñoo xam ne bëgg nañu di ñu safoo ak fañ mën di nekk ci biir àdduna bi waaw di nuyu Jaafara Diop eh, France waaw di nuyu Penda Fall fële ci Penda maa ngi lay nuyu di la siyaar di la sopp nag waaw ku baax nga waaw di la nuyu bu baax a baax Euh, di siyaare docteur Doucouré docteur Doucouré euh, suñu xarit boobu waaw di siyaare ñëpp mm-hmm. bàyyi wuñu kenn euh, macha allah di siyaare tamit nu mu tuddati Assane Sarr waaw Assane Jaafara Jaafara moo war li waaw di nuyu Assane asan Assane Sarr fële ca États-Unis Assane mm-hmm. waaw yow ñu ngi lay nuyu ñu ngi ci wàccaay waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu lañ amoon ci ay kàddu waaw di ñaanal Tektal ci TV yàlla gën leen a yëkkati gën leen a sàmm ndax tamit seen liggéey am na solo te refaleen rafetal ngeen ko baax a baax waaw di leen sant di leen gërëm xanaa rek euh, bu fekkee ni temps bi des na ma pare waaw mat na waaw kon wasalaamaaleykum non dañu waaw euh, dama bëggoon a profité rek waaw lancé benn appel hmm. ci euh, Tunkara bu DSS TV hmm. parce que fan yee dama dugg sama oto dégg ko mu dalal ko xam ne benn ustaas la mm-hmm. benn ustaas la euh, mu ni ko ustaas Matar Gueye dafa wax ni moom Moustapha Gueye dafa wax ni arsal ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yàlla dafa yónni yonent bi ngir mu nekk yërmande ci nit ñi mm-hmm. euh, loolu la ko wax ustaas bi ni ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin mu ni ko fan nekk ci alxuraan tunkara moo ko laaj lool mm-hmm. mu ni fan la nekk ci alxuraan tunkara ni ko loola mu ngi nekk ci suratu saba yi. suratu saba yi waaw ni ko ñi nekk ci eh, eh, nu mu tuddati sax bi ñëpp xam nañ aaya bi fan la nekk yow Imaam yow oustaz bi rek yaa ko xamul. léegi première fen bi mooy. ñi nekk ci plateau bi ñëpp. première erreur rek waaw. première mooy. Mm-hmm. ñi nekk ci plateau bi ñëpp xamuñu aaya bi fan la nekk. Mm-hmm. beneen bi moom mu ni ko moom moo xam fi aaya bi nekk ni ko aaya bi suratu saba yi la nekk. waaw te wama arsalnaaka illaa rahmatan lil mm-hmm. mu ngi nekk suratul anbiya yi. aaya 105. wa maa arsalnaaka. ak mi ngi ci côté Taaxa. waaw kay ak kii. waaw diggante kii bii boo jub Yaasin. waaw kay ñoom ñaar sore différence waaw sorente nañ lool. wa maa arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa nasiran walakin aksara naas laa ya'lamuun moom moo nekk suratu Saba ci ay 27. Mm-hmm. waaw. Euh, li ma daal nga waaw loolu laa doon dénoncé li ko bëgg a xamal mooy. Mm-hmm. jàpp aaya bu nekk fi mu nekk. Mm-hmm. ak mën a tari alxuraan baqara ba naasi. lu baax la waaye du xam-xam du tiitar. Euh, waaw teewul nit ki mën a nekk borom xam-xam. teewul nit ki mën a nekk nit kuñ respecté nit kuñ nawloo. Mm-hmm. te it li ñu tuddee ishaaru tansim su demee ci al axdar yi dafa araam. Mm-hmm. mooy nga fee mel ni kuy màggal nit ki te fekk li nga jublu lépp. mooy suufeel ko wala jéem a profité ngir yëkkataale sa daraj parce que xamoo ko wane ni kii xamu ko man maa ko xam te fekk ëllëg ne yow da ngaa la nga doon wax lépp du loolu waaw loolu tamit erreur la ku ko rafetlu xam-xam lañ mm. mais côté boobu daal bu ñu soñoon mu gën cee bàyyi xel te def ci attention parce que tamit rafetul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon Tounkara dégg nga li sëñ Salim Kandji wax après a moom ngeen rafetal lépp daal incha boobu jaajëfal naa ki ma habillé euh, Sam Mamadou Ndiaye Diop nekk ca Cité Asecna Derklé numéro bi di 77 645 01 73 jaajëfal waa Allemagne Ousseynou Ly nekk ca Allemagne Cologne ak tamit euh, Dieynaba Diabaté Nogay ca Allemagne Mamy Danfa France Penda Fall Italie ga jaajëfal nañ ñëpp daal Ibou Dieye Espagne tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk yoon bu mujj ci biir émission bi numéro Sëñ Salif Kagne 77 478 13 81 77 478 13 81 beneen bi 77 767 62 90 77 767 62 90 beneen bi 76 388 57 70 76 388 57 70 sëñ Saliou Kandji ji nekk ci Thiès euh, bu dee Dakar zone de captage jaajëfal Youssou Diop bi mu àndal bu baax a baax ak ñëpp Tektal ñu gën ko yaatal xew a dikk loraa nga dakk abonné leen ci Tektal TV simple Tektal TV Sénégal mooy bés bu bés cloche bi te doo fay dara abonnement bi émission bu ñëw nga am entertainment bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance ak Darkele Ganga Wade ñoom ñaar gërëm nañ leen Ganga Wade ñëwul daal Mada Wade mi ngi ci yëmbal jaajëfal tamit Petit Sow Gaw Sow nekkaat ci équipe technique bi borom Thiès ak Mbour ak Grand Yoff ak sans domicile fu ne lañ làmb daj ko beneen Baye Massamba Diop Derkle villa numéro 60 am saay baayam umbi kanay yaayam mandawaay magam Cheikh Abdoy rakkam Massamba Diop Sima mooy maamam ci équipe bi soxna bi soxna Bintu mooy yaayam sëñ Mudu Diop mooy baayam Cheikh Naa mooy seen taw papa ak kinne ak yooyu yëpp gërëm nañ ko bu baax a baax a Pape Ciss Pro Fall Modou Fall borom ñetti truy borom yaraax Anne Marinas nekk ci euh, Awa Bodian Boubacar Traoré euh, Soxna Diop tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk la rajo jërëjëf si